الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه نيغي نوي بوك جولي ييب دي لين زيار تي دي ييغلو سي كادوي نيو نارا ييكاتي غير تونتو اي نيت نيت ньо خامني يالا سونو بوروم مو ني لين ناتو ني نيك سي انترنت بي lekk nit ñoo xam ne seen mbébét du leen lu dul am tur seen mbébét du leen lu dul siiw seen mbébét du leen ngir ay nit yëkkati leen takkal leen i grade mbébét yooyu de mooy mbébét bi nga xam ne képp ku yàqule rekk ci àdduna wala bokk ñu bari ñu yàqule ci àdduna moo leen Euh, looloo waral seen yàqu wala seen yàqute waaye na ñoom ñu dolli ca lu gën a tee graaw ñu dolli ca lu gën a tee dangereux mooy na ñoom mbébét yooyu de xamuñu nenn nuñ ko mën a amee lu dul jël diine yàlla ji def ko marchandise jël diine yàlla ji def ko fowukaay rusuñu si ñi rusuñu di sos rusuñoo saaga rusuñoo tekfiir nit rusuñoo jël nit kuy dox nekkub jullit daan ko da ngaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom nit ñoo xam ne nit ñu ñeme yàlla sunu boroom lañ nit ñu dëgër fit nit ñu amul lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal ci wax lu du dëgg wax lu amut ci sos nit ñu sori xam-xam nit ñoo xam ne saa yi boo leen dégloo rek sa xel ne yar ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mam naan te abu hurayra solo ko jële ko ci moom bam naan sa yaati ala annaasi sanawatun xuddaat yusaddaqu fiha alkaadib wa yukadabu fiha الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال الرجل التافه ينطق فيه أمر العامة من ne dina ñëw يوخمني at yoo xam ne di wala illusion googu nan lay manifesté woo mooy ci naka mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waxkatu dëgg ya wala boog ñi nga xam ne ñoom duñu wax dëgg ñooñu seeni wax dañ koy dëggal waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy waxkatu dëgg ya seeni wax dañ koy neenal warkat ya dañ leen di wóolu ñi wóor dañ leen di jàppee warkat waaw su boobaa nag ruway bi day ñooy wax ñooñu lañuy dégg ñooñu lañuy invité ci plateau télévision yi ñooy ñëw TFM di ko bàkkoo ñooy ñëw rajo sàngam télé sàngam te ñoo ñooy ñan yon mën ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñan de la mu tontu mooy ay nit ñu dooy di ay nit ñu yembadi ay nit ñu xamadi ay nit ñu sori xam-xam di wax ci mbir yoo xam ne dafa concerné nit ñëpp di wax ci mbir yoo xam ne dafa général di wax ci mbir yoo xam ne euh, ñëpp lay lay soxal sunu borom de moo def ne jamono gu munti doon ak dëkk mun munti nekk su fekkee ne ay nit seytaane tàggat na leen ñu jël neen di ko tasaare ñu bëgg ñëw nekk barrière ngir daal di baare nit ñi ba duñ digg dëggu yàlla gi yàlla day tàggati nit moom ñoo xam ne seen làmmiñ dëgg rek ci ciy ñoo xam ne seen armu door alul alquran ak sunna te dañuy xuus jàll ci kaw ñooñu nga xam ne dañoo nekki ay luu yuy sol derub xar ci loolu moo tax nag ojo bi njëkk moom ci silsala bi ñu nar a def kañ ci njëkk a tontu ci ñoom mooy benn waay bu ñuy woowee Baay Ñas Baay Ñas bii ñuy wax nag kuy dund ci jamono ji la nekkub ndaw eh, nekk ci internet bi moom moo ñu moom mooy moom audio bi njëkk ci silsila bi nga xam ne niñ koy tudde mooy arad ala ruwaybida audio bi ñu nar a tontu mooy audio boobu da koo def ci ay kàddu yu néew di tontu benn mbokk bi nga xam ne la mu def rek lan mooy bakkaaram mooy defi ojo tasaare li nga xam ne mooy sunnas yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu def mooy taxaw wane ne ñëw di jaamu yàlla ca bis boo xam ne amoo ca ndigal nga jëm jublu ca jëmme bis boobu bidaa la waa ji ñëw taxaw di ko saaga daal di wax wax yu sori xam-xam ci audio boobu lañ nar a tontu waaye balaa ñu ciy dugg rek waa ji yi ñu wax Baye Niass moom dafa nekk a fadiha mooy dafa nekk koo xam ne dafa ñëw daal di feeñal daal di weer ñii di askanoo ca sawuf nim leen weere mooy ne moom du tàmbalee waxam du ko jee du ko tàmbalee waxam du ko jeexalee lu dut ne takfiir na nay nit lu dul de génne na leen ne ñii duñu dem àjjana loolu daa bokk ci ni muy waxee daa bokk ci ni muy xam nga yàlla bu nammee texe adil jaam kenn mënu ci dara abu lahabin bi ko yàlla nammee texe adil euh, daf koo génnee ci famille wu yonentu mu bokk ci deretu yonentu waaye terewut mu texe adi fépp fu yonentu taxaw woote mu taxaw ne dafay wax lu dul dëgg comme ni benn boroom xam-xam di woyee ci ay woyam mu ne euh, fa muusa allazi rabbaahu jibrilu kaafirun wa muusa allazi rabbaahu firawnu mursalu muusa saamiri mi nga xamante ne jibril moo ko yar xéeféer la euh, muusa muusa ibn imran mi nga xamante ne firawna moo ko yar mu daal di nekk mursal bal mu mu bokk ci ulul azmi min ar rusul donc nekk Makka wala nekk Madinatul Munawwara wala di dégg noddu jumaa wu yonentu euh, duwul ne moom mooy tax nit baax euh, mbokk mi nga fi dugal muy Mourtada Gueye waxu nit ñu texeyaadi yim fi wax waxu nit ku texeyaadi yim fi wax euh, ku yàlla namm ci moom texeyaadi rek moo koy wax yàlla nañ ci yàlla musal que ne képp ku màggal judd yonentu ci jàng alquran da ngay am bàkkaar wal iyaazu billahi taala xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ci xadis mu ne bokk na ci li ma gën a ragal ci sama xeet mooy ay njiit yuy réeral nit ñi laa shakka ne képp ku wax lii murtadaa wax ci njiit yuy réeral nit ñu nga bokk te bu ci tuubut ba ba dee safara la jëm yàlla dina ko ci mbugal mu kon nag mu ñëw daal di wane ab nifaaq gu nekk ci ñii ko ngemb ndax ñoom de dañ doon yuuxu fu ñu toll xool leen groupe sangam xool leen waa ñii sangam ñoom de takfiir nit ñi lañ fi nekkee di ko joytu mel nii de leen a naqari yàlla ñëw weer leen wan nit ñam xel ne ñii de loolu mosu leen na naqari kon leen naqari du takfiir ndax ñoom ñañ doon sosal ne leen takfiir si ñooñu takfiir ñu leen ñañ doon wax ne ñii dañuy dugal nit ñi safara ñooñu mosu ñu wax kenn jàkkaarloo yow na koy safar nga jëm waaye nag ñu ñëw tey ñoom ngem koo xam ne fu mu waxee nit ne ko safar nga jëm fu waxee nit ne ko yow ah, yéefar nga ay munaafiq ngeen ay munaafiqun ngeen ñu ñëw di ko tàcc yàlla daal leen di weer wane seen kanam dëggantaan njaay nekkati yoo ñoom ay saaga ay xaste wala boog saaga mag ñu baax ñi musu leen a naqari kon ñoom dañoo doon joytu ñoom dañuy taxaw ngir daal di xeex ñi nga xam ne nee nañ ñooñ dañuy saaga mag ñi te ñooñ musuñoo saaga kenn du seeni mbir du seeni wax du seeni jëfin ñu ne léegi ñoom ñooy xeex loolu waaye ca ginnaaw ga yàlla ñëw weer leen indi leen waaye ji nga xam ne moom yii dina raar na trop mu wax ba jeexal lu dul na saaga na ñenn ci sunu mag ñu baax ñu muy saxaabatul kiram wala mu junjuk saaga jëmale leen ñu ñëw di ko tàccu su taxawee ne Muawiya munaafiq la ñu tàccu su taxawee ne Abu Sufyaan munaafiq lañu tàccu su taxawee ne ña tuub ginnaaw fatu Makk ñu ci ëpp ay munaafiquun lañ xaaba yi amoon ay munaafiquun ñu taxaw daal di tàccu kon loolu tam day ñëw weer leen wane seen kanam ne ñoom kon li leen dérangé woon déedéet du du mbiri saaga leen dérangé woon teg takfiir leen dérangé woon kon wala leen taxoon jóg nekkul daal di euh, nekk avocat mag ñi wala boog nekk ñoo xam ne dana naqare ay nit ñëw di wax ci awliyaullah loolu yàlla moo leen ci waa ji wala yàlla moo wane seen dëgg dëgg seen seen kanam kon waxam ji nañ ko jël benn par benn lépp lu mu wax ci audio bi rek imma ay la ay mbir yu wérut la imma dafa nekk mbir yoo xam ne ah, dafa soreek xam-xam wala boog mu doon mbir yoo xam ne ay saaka la ak i xaste ak takfiir ak laan ujum bi yëpp loolu kese la la fees ji nga xam ne moo nekk ci njëlbeenu kàddoom gii li tax ma ciy taxaw mooy dafa dafa nekk lu révélateur li muy révélé moo bari te day dellu si bari cee waxam lii li muy mooy soxor ak mbañ ak fekkee nag rancœur bi nekk ci xolam te mu dencal ko ahlu na te seen bàkkaar nekkut lenn lu dut di leen woo ci ngërëmuk yàlla ku yonentam di leen woo ngir ñu yem ca la yàlla digaloon yonentam ak saxaabaam ñu yem ca def ñu leneen mu bañ leen bañ gi waaye wax ji li muy gën a wone rekk mooy ne nekkiti yoo kon ñi ko ngemb te mu ànd ak ñoom seen wax jun doon baril di ko wut di ko jël di joytu naan yéen bàyyi leen jëli aaya yoo xam ne ci yéefari la wàcc di ko wax ci ay jullit loolu ak ñu koo bari di ko wax doonte loolu ak riir la ak ñàkk xam la waaye ñoom seen ñàkk xam dañ cee fier ñoom dañoo ñàkk xam ba pare nag yémuñu ci ñàkk xam waaye képp koo xam danga nga da koo xam ne da ñëw bëgg leen xamal yi taxaw jàmbaarloog yow loolu daa metti lool du taxaw continue di woo di leen jéem a xamal lu dut koo xam ne li la taxa a jóge mooy yàlla sunu borom pay yàlla kese na ma nga bëgg mi ngi mel ni rek ba yàlla ñooñu bu doon nit ñu baax bu doon nettali innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura donte ñii ci lekk la doon wax waaye ñun de ñii ñun dañ leen di dundal ci xam-xam moo tax seentuñ ci ñoom ñu wax ñu gërëm ñu seentuñ ci ñoom ñu daal ñuy fay seentuñu si ñoom sax ñu am gratitude donte dañuy saaga dañuy ko ne da yàlla subhanahu wa taala mooy tax a jóg ñoom seen ñàkk xam googu ma leen yóbbu ci ne xamuñu ne al ibra bi umumi lafz laa bi xosoo xusuusi sabab yàlla su wàcc ab aaya boo xam dafa am sababu nuzul sababu nuzul ba nekk ay yéefar boroom xam-xam yi dañuñu ci jël aaya yooyu di ci jox jullit ba lam ca moom waaye teg tekkuut na dañ koo tekfiir amul téere tafsir booy dugg lu di nga fekk ab aaya wàcc yéefar jën nañ ko jox ko ah, jox ko jullit lam ci moom ba ca gën a siiw wala bokk bi nga xam ne eh, kuy gëstu jam nga ca mooy waxi yàlla ja sunu boroom ja bam naan آه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يكون الكافرون أما سكة ساكن كي في الوجه اليهود والنصارى ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يكون فاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم هم الظالمون سي الكتاب واجواي دي ودني برام خامو بق بجيج آه، ابن عباس آه، انم كفري فرين لغو خامنة دي جل ay jullit jox leen seen wàll comme ni ko imaam Tabari di waxee waaye loolu ab parenthèse la kon loolu daa nekk lu nit ñi xam waaye ñoom dañ koy kaas du bari waaye loolu nekkul moo gën a garaaw ci wax ji xool leen waa ji ñu ngemb moom la mu def moom ji nekkul jërub aaya tëg daal koy jël di ko wàcce ci ay jullit waaye dafa jëlub yéefar boo xam ne yàlla moo waxu kéefaram dafa tëruk yéefër boo xam ne ci lislaam lañ xamee ne moom ci kiifar la deewee te safara lay dem ba faw mu jël ko di ko tëkkaleeg jullit boo xam ne mi ngi mu ngi dundu mi ngi wax laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah lii lan moo ko gën a garaaw waaye ñi doon joytu lale ñoom ne dañ doon joytu ne kon waruñoo jële aaya di ko wàcce ci ay yoo xam ne ci yéefar wàcc ñu koy wàccee cee jullit ñoom dañuy jël audio yi partagé ko di tàccu lii lan lay tekki day tekki ne kon nit ñi nekk nit ñu dëggu nekku nit ñoo xam ne eh, dañuy xeexee lañuy xeex dëgg lañ koy xeexee ay caaxaan lañuy xeexee mooy lépp lu ñu xam rek ne mën nañ koo wax wala mën nañ koo def ngir ñoom luñ bëgg nit ñi dégg ko nit ñi dégg ko ngir bañ nit ñi daal di bàyyi mbir yi nga xam ne ci lañ nekk te muy caaxaan te mu nekk seen intérêt ñoom nañ koy utiliser te moo lii la mbir mi euh, tàmbali waxam ji di ba mu defee maniinam ci tàmbali waxam ci sos bi moom dafa sosal yàlla sunu borom euh, jëlub jullit dugal safara comme par exemple wane boo bi nekkoon ci xol mi yépp mu defaat beneen maniinam moo jëli wax di taw yi di ñoddi orne ba soo ko séenee rek nga jàpp ne xam-xam ak ngële nga daw ne xaaral ma may ko nopp ngir daal di waaye soo dégloo pare da nga fekk ne doo ca fekk lu dut ne ak réer la fekk fa jëlum rakkab fekk fay sos mi ngi mel rek waxi yàlla jël sunu borom sootu nuur bam naan walladina kafaru amaluhum ka sarabin biqiatin yaxsabuhu damaanu maa يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه désolation nga fekk mooy na koy tàmbalee sos la koy tàmbalee tekki cak ñàkk xam te ko ak réer nee na mbokk mi dafa wax ku jàng alquran bisu dem safara mu wax jooj kon daal koy rëyal daal wax ji du ko wax mooy waxi ko xam ne rek da nga nara te day wone ni ko waxi ku dem euh, wala bara bok ñi nga xam ne ñu ku bëgg ñew ci ginnaw gi nak sous prétexte ne bida ngay xex ba ku jang alcorane dugg safara yow yaay dugg safara yow nga wax kene kep ku magal juddu yonentu ci jang alcorane da ngay am bakkar wal iyaazu billahi taala wax ji li ci njëkk mooy ay sos la ba pare di wane réer gu rëy rëy ak ñàkk xam gu rëy ak jëxla gu rëy gu baaw ko ci waay ji sos bi ci njëkk mooy li mu wax ni nekkul na moom la mbokk mu wax du ci laxas bi du ci maanaa bi mbokk mi waxut ne jàng alquran bisu gàmmu loolu yóbbu nit safara wala bokk loolu moo nekk lu bon waaye mbokk li mu wax mooy lu leer naññ la li mu wax mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax saxaaba yi déggee ko noonu boroom xam-xamu umma bi déggee ko noonu mooy jëmmi jëlu bis daal di koy jagleel ay jaamu yàlla te yàlla akub yonantaam jagleeluñu bis boobu jaamu yàlla kooku def na bidaa loolu ako wuteeg wax ne diw nee na ku jaamu yàlla bis bi am nga dangay dem safara wala boog dalay yóbbu safara waaye loolu ceeg réeram la yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo jago woon fu mu toll di wax wax ko benn yoon wax ko ñaari yoon wax ko ñetti yoon ñeenti yoon waaye saa bu doon tàmbali discours am moo lu ci ëpp doonoon wax kullu muhdasatin bidaa da koo yitteloon ba ba muy taxdir ci loo xam ne ñëwagut xadis bii nii ñoom suñ ko mënoon a effacé wala suñ ko mënoon effacé ci bopp nit ñi wala suñ mënoon a tëjloo làmmeñu gémmeñ ñu koy wax dinañ ko def suñ ko mënoon a feebarloo dañ ko feebarloo dafa daayif suñ ko mënoon a fexe ba kenn dootu wax dinañ ko def dafa nekk xarit moom fi ñëw di rey seeni e, di mabbal seeni base di mabbal seeni bànneexu bakkan nu nekk def nañ ko nekk nekk jéem nañ ko ko interpréter waaye xadis bi des rek ñu leen koy wax pour mu dégg seeni nopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon répété fu mu toll kullu muhdathatin bidaa wa kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar ci riwaaya wa kullu dalalatin fi nnaar am na ca wax bu reelu bu wax mooy bu ma déglu si ab audio mu ne nee na yaay ci ab professeur am la ko waxoon nee na da ko doon noppiloo nee na jëmmi bidaa gi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mooy dem safara wax ji waxuma la wax borom xam-xam waxu ko wala du ko wax waaye comme xel tuuti rek di nga xam ne wax ji yenut maanaa mënta jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi lim ci jublu mooy jëmmi bidaa mooy dem safara yow ki nga def bidaa gi yow soo yoon nekkul ci safara ja allahu akbar kii su ne bokkul ci ruway bi la xaw ma ku ciy bokk jimmi kon suñ demoon man ak ñoom man ak moom ba d'accord ci bidaa sax ne lii bidaa la nit ku ko jëf moom kooku yoonam nekkul ci safara moom jëfam ji la ñuy jël rek daal di sànni safara bidaa ba waaye comme moom sa wax ju mel nii gëm naa ne sa ni bi nga xam mooy cheikham bi muy nëbb gëm naa ne mu sa wax ju mel nii qaatal allahu la chaque année ahlu sunnati wal jamaa xadis bi suñ koy wax suñu ci jublu ne képp ku defu bidaa da ngay dem safara waaye mbir bu aw waayit la pour wan ne mbir mi mbir bu bu la mbir bu dangereux bu nit war a moytu la waaye nekkul jëm ne képp koo def da dem safara waaye am nga waaye boo xam ne yàlla tëkku na la ko ci ne sa jëf ji bokk jëf yi nga xam ne dañuy tax nit war a mën a dem safara waaye موم ولا نيوم حادث بيني نيكول حادث بولن انتريسي نيكول بولن ارانجي دونك دي مبوك مي واخ تي بدعة ني كوكو ديف ديمغا ولا بوك كوكو ديف ديف نغا لو بون لولو موي وحي يونتبي صلى الله عليه وسلم موي وحي صحابي واي موم في ريرم نيكيل نياك خامم فمي فيني moy ci lii ñu al bid'a al idaafiya te so xol umma bi bid'a ci gëna ëpp moy al bid'a al idaafiya lan moy bid'a al idaafiya moy lo xamne asla ba ndax nek na lu sax ci sharia way ñu jëfé ko jëfin bo xamne dañ ko jël jaglele ko ab bis wala bu a waxtu wala jek lel ko ab beurep wala boog jox ko ab sabab wala defé ko defin bo xamne sabab ba taxone nekku fa wala ñu jox ko ab melokaan su boobaa kooku def na bidaa idaafiya kon bidaa idaafiya googu noonu da ciy dugg ne waaja la def jëmmi ga mën na nekk lu sax ci lislaam moom nooy na kon loolu ku saxal ab mbir ne lii bidaa idaafiya la yow da wax ne jëmmi jaamu yàlla ga moo yóbbu nit safara kon ku bon nga yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam ci xadis ba anas ibnu malik daal solo mam ne ñetti ñoo ñëwoon ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa di ko laaj naka doon jaamu yàlla bañ wax ko mbir ñu xaw a xeeb mbir ya daal ku nekk ci ñoom daal di wax eh, ne man damay julli guddi kii ne man damay julli guddi ma nelaw kii ne man damay eh, damay woor kii ne ma damay sori sonni jaamu yàlla comme nam ñëwee ci buxaar yi ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale nit ña di wa waxam ju siiw jooju antum qultum kada wa kada amma wallahi an axshaakum allah watqaakum lah ba mujjeele ko ne fa man raxiba an sunnati fa laysa minni mun nañoo taxaw wax ko wax ji waaju réer yi wax nan na ko yàlla day mbugalaate ci julli yàlla day mbugalaate ci koor yàlla day mbugalaate ci bàyyi sa soxna nan lay tontu mooy imam Malik tontu woon kooku ñëw daal di koy laaj daan imam Malik fan laa war defee ihram amadakum min dil xulayfa fa nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee xaraam mu ne ko man dama bëggoon a defee ihraam ci masjid ba ci xabre ba ma Maalik na ko woow bu ko def de damay ragal ci yow fitna mu ne ko benn fitna moo nekk ci lii ci ma yokk ci dara yokk ci ay mètre loolu ci nekk fitna ma daal di koy tontu ne ko ban fitna moo gën a mag nga jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngëneel goo xam ne moom da cee gàccandu woon loolu fitna gënu ko rëy di daal di koy tere nag fal yaxdar alladina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adab adabun alim kon imaam Maalik daa bokk ñi nga xam ne ñoom dañuy réeral xeet wi ndaxte nit ko yokku ci ngir wutu yiw yokku fa mu war a ixraami day yokki tal talbiyam tàmbale ko loolu yëpp yàlla da ko ci imaam Maalik euh, moom da koy réeral ne ko lii yàlla da ci nara mbugal soo ko defee naka noonu Abdullah ibn Mas'ud fekkoon ñay ñiy zikr ca ja mu ŋàññi leen ne leen konte leen seeni bàkkaar dañ koy wax ne yow yàlla nu muy mbugalee nit ci ci ci dikkër saïd musayyib rahimahullah euh, comme ni ko Bayhaqi yi génnee ci sunan kubra Abdurazaq tamit génne na ko Daarimi dafa gis benn waay doon julli ginnaaw ba fajar eh, ñëwee ginnaaw ba fajar daal di xotte ko mu jullu ëpp ñaari rakka bari rukkooy lool ak sujud ibnu sabi daal di koy tere déglu li ko waaju wax mi ngi ko wax li suñ li suñu waaju réer ji wax ne ko waaye yow yaa aba muhammad ndax yàlla daf may mbugal ci ab julli allahu akbar mu ne ko laa déedéet walakin yuadibuka ala xilaafi sunna du la mbugalee ci ak julli de waaye lim lay mbugalee mooy wute gi nga wuteeg sunna moom kii pour moom Saïd daa bokk ci nga xam ne dañuy réeral xeet wi kon ci lii moo ñuy permettre ñu leeral waay ji lan mooy bidaa lan mooy gravité yi nekk ci bidaa ak ñi nga xam ne ñoo mel ni moom ci audio yi wala boog ci kàddu yi nga xam ne moom la ci toftal tontu ci li mu mu jële eh, nekkat beneen sos eh, beneen réer beneen jëxlun boo xam ne jëxlu mu rakkab la ba rek ci mbir moom moo xam ne tudd na ci kon buy wane ne waa ji nee na moom daa bokk ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nekk ay nit ñoo xam ne da di laaj ñu tontu réer réer nit ñi ko daa tudd Buxaari xadiisu Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne yàlla du jëlee xam-xam ci kaw suuf ab jëlin waaye def koy jël ci jëlee fi boroom xam-xam yi ba du des lu dul jaahili bu ñu leen laajee ñu tontu ci lu dul xam-xam réer réeralaati loolu taaliq bu taw bu ci am rek mooy day wane ba tey personnalité waa ji mu amul benn sérieux bu nekk ci moom te dafay yàb nit ñi dafay fowe xelu nit ñi dafay fowe xelu sax ñi koy déglu ak ñi ànd ak moom ndaxte ba mu waxee xadiis ba ne Buxaari ma ngi nekk ci saxiil Buxaari loolu amatul benn solo ci moom mu jug ci gémmiñ ñi mu dem xadis mu saxit Buxaari ndax moom toog na fi fan di jéem wane ne Buxaari moom daa nekkoon nit koo xam ne ku oyof la ci diineem nit ku doon jaay diineem la nit ku ragalul yàlla sunu borom bi la lu tax ndax da doon jéem a saxal ne Buxaari day dugal ci téeréem bi ay xadis yoo xam ne xadis ñu fabriqué ay buur ñooy fay nit ñu dugal ko ca di ñaañ ñi ñoo xam ne ay jullit lañu don jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Buxaari sallallahu alayhi wa sallam Buxaari ñëw dugal xadis yooyu noonu ñu ñu fabriqué di yéefarloo ñooñu di yéefarloo ñooñu don jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yóbbu safara ku mel nonu nga jima won nit ñi jëm leen a jénne seen réer gu ñu nekkon nga jàpp ne bukhari mom ku magla la ngam nañ ko réer réer réel diri cheikh ab réel ko réel ko réel réel comme ni ñu ñëwee ci waxam looy ñëwaatee du tuddub xadis naan ci saxiixam la nekk te yow kooku nga jàppee ko gën a yées si nit ñi ndax dara gënte yées di sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara gënte yées bindub téere am xadis yu ñu fabriqué nga fay teg dara gënte yées ñu lay fay ngir ngay ñëw ni ŋañ ñu jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom amul fenn foo ko mën a xaar ndax amut benn règle fu muy taxaw lu neex bakkanam lay lay taxaw waaye ba mu pare ci loolu mu waxaat ab mbir nga ne xaaral ma ñëw déglu ah mun naa mu doon xam-xam waaye saay boo dellusee ba egg rek fekk fa mu yées la jiitu mu gën a tee sori xam-xam nekk ci sos moom su sosalu yàlla subhaanahu wa taala sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su sosalu yonent bi sallallahu alayhi wa sosal boroom xam-xam moo tax ku mu sosol rek bu na naqareeti nee na boroom xam-xam yi dañuy tàqale loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo baax baga ama illa wala mu bàkkoo ndax dafa xaram wala mu bàkkoo ndax baggu am dafa am illa parce que boroom xam-xam yi li daal di bon yépp boroom xam-xam yi teqale nañ loo xamante ne yonent bi daf koo defut ngir ne loolu xaraam la wala loo xam ne yonent bi daf koo bàyyi ngir benn la léegi loo xamante ne yonent bi tënkut ko aussi boroom xam-xam yi wax nañ ci ñaata mbir ñoo amul kayfiye muayyana ñi bàyyee la choix bi yow te pourtant ndigal bi jox nañ la isnu mutlaq lii mooy waxi lan lii moom mi ko wasa comprendre lan la da doon jaxase rek moom na wax rek ba ñu koy déglu maa ngi défier képp ku ko déglu ku mën a ñëw expliquer li mu wax nii ak fu borom xam waxee loolu ak li ñu séparé mooy lan du waxi dara du waxi lan wax yu daanu ci suuf rek la waaye nag daf ñu dimbali ñu leeral tey lu am solo li tax nit ñi mënuñu wala ñenn ñi mënuñoo xam lan mooy bidaa mooy liy dellu ci wàllu ak tark sunna ak tarkiya ñu leeral ko wax li ci boroom xam-xam yi wax wax li ci usul yu ni wax ak noonu naka lañ koy xamee suñu xamee al bida at tarkiya naka la ñuy comprendre al bida al fi'liya bi nga xam ne euh, mbir yu bari yi ŋàññ jëmale ko ci nit ñi ci lay ci lay dugg dañu dugg ci tarki bi nga xam ne mooy tarki bi nga xam ne mooy sunna am na bab yi nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa ba ak sunna la kon topp ko ca sunna la def ko day doon bidaa foog ñu xam la mooy tark wala boog ñenn façon tark moo am boroom xam dañ la am na tark boo xam ne tark na adami la mooy ba loo xam ne nekku fa sa amut ba giñ ko ba moom mbir ba la nekku fa amu fa wala amut lenn loo xam ne daal dina tax nga mën koo def war koo def wala nga mën koo nga mën koo def boobu tark taxuñul jóg am beneen tark boo mooy la nga ba ngi fa waaye nga ba ko ndax daa am lu tax nga ba ko daa lu ko sabab tark boobu moo ñu yitteel te tark boobu noonu boroom xam-xam yu bari yuy màcc seen xam-xam màcc jëm ci usul am nañu koy dugal ci ak jëf ne ba googu mook ak jëf ñooyam comme fi'l la bokk na ca la ñuy tegtaloo te imaam Shinqiiti raximahullah euh, di ko wax fi muzakkaratihi euh, mu di tudd laaya bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala da cay ŋàññ ñenn ci ahlul kitaab ci ñàkk digle baax ga doon digle baax yàlla daal di koy tuggee jëf mu ne law laa yanhaahum rabbaaniyuuna wal ahbaar an qawlihim al ithm wa aklihim al sixt la bi'sa ma kaanu yasnaun mu ne loolu xool leen yàlla fii da koo tudde ñàkk ñoom digle wala ñàkk tere gi leen doon tere bàkkaar yi ñu doon def yàlla du ko tudde ak ak jëf léegi nag kon jëf gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa jëf goo xam ne daf koo baax te lu tax mu waroon ko def nekk fam waaye mu bàkkoo ngir ay daa am ay daa am ay mbir yu ko waral daa day divisé wu ci ci ñaari pàcc ba ca njëkk mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa daal di ba baga am na lu tax waaye la tax nekkut ngir wane ndax lii sunna la ne kon du wane ne baga sunna la waaye day wane ne bagoogu moom euh, mbir ma moom dagan na waaye yonent bi sallallahu alayhi ko ngir ay mbir su boobaa mu boobu ñu diviser ko ñett ba si njëkk mooy loo xam da ko ba mooy at tark al jibilli wa tark al aadi mi ngi mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam lekk yàppu mbët mu jug lañ koy ci olof li tax mu bakkoo lu ko yàlla bindee la bukkut yàppu mbët li tax mu bakkoo mooy aada wuwut seen dëkk amut aada wuñ di ko lekk kon moo koy baax kon dañuy xam ne lii nekkut sunna wala bàggoog nekkut bàggu sunna moo tax saxaaba yi ba yonent bi sallallahu alayhi ñoom bañee lekk mbir ba ñoom dañ cee déggee ne ah kon bag yi day noonu bagoo xam ne daf ñu koy tere ñu ñu laaj ko mu wax leen lu tax mu bàkkoo ñu xam ne kon baggi yi nekkul bawak sunna wala loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo ba waaye ñu am texte bu leer ci sharia du ñu wax lan moo tax mu ba ko wala boog texte boo xam ne ci sharia mooy wane ba lu ko taxa lu ko taxa jukk di dellu ci baw goo xam ne sharia la waaye ba nekkul ba goo xam ne sharia da ko tere ba mu nekk lu xaraam mu nekk loo xam ne day nekk lu xaas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñàkk lekk gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk na ko di lekk laaj loolu la chaque yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom charia euh, daf ñu wane ba googu mu ko ba bagu xaas la wala bokk yonent bi sallallahu alayhi wa ba meedi mbir bi ma ñetteel bi bagam ko ba dafa am ab jubluwaay ci charia am benn maslaxa bu ca nekk loolu moo tax mu ba ko mooy ñàkk rey gi yonent bi sallallahu alayhi wa doon ñàkk rey almunafiquun la ko waral mu ba ko mooy ne daa moon bu ca nekk wala mu ba mu am mbir ndax dafa am lu tax mu ba ko dafa am lu ko tee daam lu ko empêché mu def ko daam lu mu ci bañ ndax su ko defee jàpp na ne dina ci am wala am na mafsa bu mu cay seet comme bagi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bare woon julli taraweex ndax la taxoon mu ba ko mooy ne euh, bañoon ñu def ko mu nekk lu war wala bagi yonent bi sallam ba woon jël kaaba gi daal di koy tabaxaat ci fondement Ibrahim alayhi salaam kon ñetti bay yi ñu tudd mooy ba boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo ba ngir ne aada woo ko loolu ba ko du nekk sunna ngir jëmmi ba ko rek loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo ba ngir ne am na texte bu ñëw wane lii dafa xaas yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo tam ba ko du doon sunna ak lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ndax dafa am maane bu fa nekkoon المعنى الشرعي ممكن يكون ولا مو مصلحة شرعية موي بي موجي تدو لولو تامت فكينا معنى بجوغ دفا مصلحة با بنون وت نيكوت ولا امنا بنان مصلحة بوكو اب بو نيك تي ديفكو سو بوبا لولو ديفكو ولا بوك باكو دوتو نيكو سنة ديفكو صح فرنا موي نيك لاغا خامني دنجكاي kon lii foog nit ki dal ki comprendre ñu doog xam ne kon lan mooy ba li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba te ba ko nekk sunna te def ko di nekk benn xamee ne mbir bi sunna tarkiya la nañ koy xamee ci ñaari mbir la ba ci njëkk mooy ab saxaaba ñëw wax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn mbir mi comme ni ko Ibn Abbas waxee te muslim génne ko mu ne gisuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy fóon lu dul ñaari ruknu yemenit yi kon foofu day wane ne kon yonent bi lay sunna mooy fóon ñaar yooyu la mu ba fóon ko du sunna moom tamit comme ni ko Abu Dawud yónnee Ibn Abbas moo leen wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na iid deful aadaan deful iqaama noonu it Abu Bakar Omar ak Othman wala boog Abu Bakar ak Omar wala Othman Yaxya moo moo duti ci loolu moo am ab shakk kon ñàkk gi mu def iqaama ak adaan ci salaatul iid day wane kon ñàkk a def googu sunna la def ko day doon bidaa euh, addi li nga xam ne ñooy wane ne sunna tarkiya lu ñuy jëfandikoo la ci baabu jaamu yàlla bari na euh, bokk na ca xadiis bu siiw bii te wax ko ca kaw te anas malik radiallahu anhu soloo ko ñett ñooñu duggoon ci soxnaa soxnaa yu yonent bi sallallahu wa sallam den la jaamu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu waxoon seeni wax la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal mooy baagi mu baax ñoom lañu bëggoon a def loolu mooy sunnaam فمن وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني كن له بين لا جا با تا بخاري جيني تبوائل سلوكو من توكو نما مك شيبه تي اب شيز تي بير mu ne ko man toog naa toogaay bi ma toog ak yow toog na ko Omar mu ne de amoon naa yéene wala bëggoon naa du ma fi bàyyi dara lu nekk ci biir kaab yi lu dama koy séddale mu ne ko sa ñaari waay ya de muy kan Abubakar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom bawoon nañ ko ñoom defuñu ko de mu ne ne kon de ci ñaari ñooñu lay roy kon bàggañ ko ba da koo def ak sunna gom da cee roy وكان خالد بشتو مهرس عمارة ابن رعيبة ابن رفقيس بش ابن مروان شيكو من بر بمجيكة نيار لهم ويكي بسو جمعة كم نيويك رواية أبو داود جيني ومنك قبح الله هاتين اليدين قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة كون جيسنا في لن لكم غني ويجمين موم دفا جخن بارامم كيف خمني ينتبه صلى الله عليه وسلم دفا دونا يكتي نياري لهم ba ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mbir momu te dara teew ko ko def te mu amon lu ko meuna tax def motax tax mu ko mbir mi ba wax ci euh ba ñaanal ko ñaan wi nonu tamit la bukhari muslim dadi solo hadith mu'adha daf ne damaa laaj Aïcha radiyallahu anha waaw lu tax ki nga xam ne moom dafay gis baax du fay julli eh, te du fay koor wala boog di fay koor te du fay julli la moo tax ki nga xam ne gis baax day fay koor waaye du fay du fay julli Aïcha ne ko yow xanaa bokk ci xaruriya mu nekkoon ab eh, groupe xawaarij mu ne ko déedéet mu bokk ma ci ñoom de waay damay laaj rek mu ne ko ñun de nii lañu doon gisee mbaax ñu ñuy digal ñuy fay koor te daaw ñu ñuy digal ñuy fay julli kon moom la ko won mooy ne eh, yonent bi sallallahu alayhi wa lam ko digal lam leen digal mooy fay eh, mooy fay eh, mooy fay koor waaye ñàkk digal ga mu digal fay julli kon loolu tamit day wone ba tey kon bagam ko ba ba digle googu bagañ ba jëf googu tamit euh, daa nekk ak sunnate jéem koo def di fay nit ku doon ñëw di fay julli ginnaaw su amee mbaaxam su demee muy fay julli ga kooku bida ak gu mag lay def te pourtant julli rek lay def danañ ko ay ndax yàlla dina ma mbugalee ci julli danañ ko déedéet yàlla lim lay mbugalee mooy sunna gi nga ba te sunna ga moy ñak digel gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam digaloon jigéen ña ñuy fay ñuy fay julli sun gisee mbax ba pare sun don top ahadith ak athari ñew ci mbir mi di euh lan moy ni sunna at tarkiya nekke ab mbir mo xamne dañ ci euh mën nañ ci sukkandiku wala boog nekk loo xam dañ cee way yonen wa dañ cee war a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ fi duñ fi jóge na lañ koy yémele fii rek daal di wax yenn borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ci borom xam-xam yi nga xam ne borom salaf yi nga xam ne ñoom dañ doon gis lii dañ doon nii la doon itibaare as sunna at tarkib Shafi rahimahullah ماشي تيرين بسيو الرسالة نعم، وللناس تبر غيره من نحاس وحديد فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه مما كنا كينا ميريغا خمنا ينتبه صلى الله عليه وسلم نتبع ونجل زكاة نخم كان شي أربو خمنا تقوكون كلون ولا مدون كيف ولا مدون بلون ولا مدون فير mu bagi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bawon ak ñëw ci gennam bako euh mota dañ koy baax wala ba ñoo tax ñu bako ngir ba ko al imam ibn googu si sahiha mune babu tarki منه fi ترك qabla al المصلى wa ba'daha iqtida'an bin nabi wa istinanan bihi mune mu ab bab num ko tuddé moy bab bi nga xamné limi aju moy ba gi yonent bi sallallahu wasallam ba julli ci musalla ñak julli ñu lan julli ci musalla bala eid bala ñaari eid avant ak ba gi ko don ba tamit après ñaari eid mané lolu kon ngir top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh top ko toppuk sunna أبو المثير السمعاني من يحفي القواطي العدلة إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء وجب علينا متابعة متابعته فيه nee na su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bawee dara ci mbir yi dafay war ñun tamit ñu bokkoo dafay war bokk ñun tamit ñu topp ko ci ci loolu noonu la imaam Darkashi di wax ci al-bahru muhiit al-mutaabaa al-mutaabaata kama takunu fi al-afaal takunu fi turuq mu ne topp de ni mu nekkee ci jëf yi noonu la nekkee tamit ci li ñuy ba kon wax yi dafa nekk wax yu leer yu wane ne kon lii nii nekkut ne al-wahabiya ñoo ko inventé Euh, waaye daa nekk euh, lu saxla euh, jigee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi diggi ko noon imme yi ñoo seen ginnaaw daal di koy diggi woon noonu te lii ñuy wax muy gàmmu ci lu dugg ndax gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo baax la kenn werante yonent bi salla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu bisu juddam ñëwoon daaw ca daaw ko jagleel ak jaamu yàlla kon da koo baax ñu nekk ci ginnaawam daal di koy baax te amul lenn rek lu wax moo tax mu koy def loolu da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko amul xër gu te wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabam ñoo gënoon a xër waaye yonent bi daal baax te amul lenn lu ko tere woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun koo def ak ñi ñëw ci ginnaaw mun koo def ñu daal di koy baax kon ba googu dañuy won ne sunna la te def ko koo def def nga bidaa gu nguur ci diini waaw léegi kon lan mooy ak sunna tarkiya sunna tarkiya mooy lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf koo baax waaye baagam ko ba la tax mu war koo def mi ngi fi woon te amut lenn loo xam ne tax na mu war koo bàyyi su boobaa kon suñ définir ne sunna tarkiya mooy loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo def te muqtadi ba nekk fa woon te amulut maane su boobaa dañu xam ne sunna gi bagam ko ba kon bala goo xam ne sunna la te def ko su boobaa day nekku bidaa waaye lii li muy génne kon suñ définiré nii mbir mi la muy génne day génne kon lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba na ko waaye amul kattanu def ko moo nañu waxoon ak tarkul adami kon loolu mu duggutu ca lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko wala mu wax ko wala ñu def ko ci kanamam mu approuvé ko da ci génn lépp tamit lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waaye li tax mu waroon koo def nekk fu woon comme na mu bawee dajale alquran loolu tamit da cay génn loolu day dugg ci almaslaha almursala xam naa dañ dugg ci kanam lan mooy al al masalih al mursala da cay jën tamit lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ndax da am lu ko ko téré wona def comme nam bay won salatu tarawih da cay jeen tamit lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ndax lo xam day delu ci aada wala ci nako yàlla bindee wala mu delu ci nga xam ne dafa nek lo xam ne yàlla moko ko jaglél mom kassé kon ci ngay gisee ne nit ñi dañuy tudd lépp di ko indi naan yéen a ngi naan lii bidaa la ba pare ngeen di saxal lii da ngay fekk ne kon ci lii lay dugg lii ñu lim lii yépp waaye du dugg mukk ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo ba te ba googu noonu am lu tax mu waroon koo mu waroon koo def te dara tere ko koo def loolu moom doo gis ab mbir boo xam ne ahlu sunna dañ koy def ba pare nga ñoom wutik wutik lii kon li ñuy indil yépp day fekk ne duggul ci li nga xam ne moom mooy as sunna tarkiya nag mooy na mu tàmbalee mooy wax lu nekkut euh, dëgg waxuk réer wax euh, wax ju tegoo ci euh, ñàkk xam gu rëy rëy rëy rëy xam ne nee kayfiya jaam yàlla ko amul kayfiya muayyana mën nga koo mën mën nga koo wutal kayfiya li boroom xam-xam yi di wax mooy bu diggalee ñëwee ci sharia nekk lu mutlaq kenn ku nekk am nga droit defee ko ci kayfiya bu la neexee léegi digleeg sharia ñëw na ci ne nit ki bis boo am mbégte ak ngëneelu yàlla ak yërmande yàlla qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun farxa boobu yow mu la neexee nga dekk nga dundal ko ci jàng alxuraan keneen bu ko neexee mu dundal ko ci tasbiix keneen bu ko neexee mu dundal ko ci ay nawaafil keneen bu ko neexee mu dundal ko ci ay sadaqaat keneen bu ko neexee mu dundal ko ci ay koor parce que isna bi mutlaq la amul kayfiya muayyana ban borom fu mu ko waxee lan mooy kayfiya muayyana lan la jublu ci jaamu yàlla gu amul kayfiya muayyana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat mooy yatasawar mu mu digalee jaamook yàlla bare waxul nu ñuy jaamoo yàlla kon lan mooy rôlam mu jëlug jaamu yàlla rek daate boyal boyal gu mutlaq moom loolu la noonu la boyal yonent bi sallallahu wa sallam bam ñu waxee ñaan jàngal nañu nu ñuy ñaanee ki ñu jàngal ba jàngal ñu nu ñuy demee wanak jàngal ñu ba jàngal ñu ni nelawee dina ñëw jàmm yàlla mu ñëw ko boyal ko noonu nu neex defee leen ko loolu bañ nit a koy wax la shakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñuy jàngal nañuy defee jaamu yàlla doon ay naafila moo tax jàngal nañu nu ñuy ñaan jàngal nañu nan la ñuy defee zikr jàngal nañu nu ñuy sante yàlla sunu borom jëlu ko rek ko comme moom ni ñu koy waxee mel lu amul kayfiya la shakk dafa am kayfiya ci charia waaye la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën a boyal moom mun naa boyalu boo loo xam ne mooy adat ba mun naa boyal fañ koy defe da loolu daa bokk ci yusru charia daa bokk ci achar yusru gi mu làmbool mu jël yenn jaamu yàlla yu bari daal di koy boyal du la tënk ci ay ay nombre du la tënk ni ci bërëb sangam nga ko war a defee waaw kon nag ki ko boyal mooy ki nga xam ne moom du ca jublu ab adat du ca jublu ab bëb ab bi sangam du ca jublu ab bërëb sàngam na koy boyalee comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waa ji yuur bi dara nekku ci xelam dafa nëx ñi ko toppit seen xel bi daa da ko muur ba mu na ci ñoo dégg loo xam ne xale bu am juróomi at mun na koo comprendre mënuñoo comprend ne wutal mbir ma adat loolu wuteelul ak boyal ko la wuteeg boyal ko te mooy tënk bi ñu tere mooy daal di koy wutal adat jublu ca adat ba wutal ko bis jublu ko jublu ca bis ba wutal ko a ab bërëb jublu cu bërëb ba loolu moo wuteeg boyal gi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boyal waaye jëmmi boyal na ko kay loolu kay mooy wax ne kay nit ki mën nga koo defee bis bu la neex mën nga koo defee nombre bu la neex mën nga koo defee waxtu bu la neex waaye nag bul jël waxtu ne waxtu bi moom dama koy def jublu ko ca bul jël nombre ne nombre bi dama koy def jublu ko ca soo ko defee nag boyalato boobu yaa ngi yaa ngi koy tënk kon foog ñu xam lan mooy tënk ak lan mooy boyal sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boyalale ab ñaan kay wala ay ay adat kay mooy mun naa koo def cent fois mën naa ko def deux cent fois mënoo génn ci nombre di ko am nombre moom noo mënti defee ko nombre noo mënti defee ko fenn noo mënti defee ko ca waxtu kon kan moo wax ne doo ko def ci waxtu waaye lañuy wax mooy doo jël waxtu ba jublu ko ca te ki ngay gis li ñuy indi yëpp bokk na ci moom la ñu faral di indi mooy waxi Abu Hurayra te su ko neexee mu ne Abu Hurayra da doon toog ak euh, su ko joxee mu wax su joxul mu noppi. wala boog su ko joxoon mu wax su ko joxee mu noppi daal di ñëw di daal di doon day wax yem foofu bàyyi nit ñi ñuy sikki sàkka du wax lu tax euh, lan la ñu jox Abu Hurayra ci lan doon nopp ci doon wax su ko neexee Abu Hurayra jël ab mbir def ko mu jël ko def ko euh, ab dalil jël Abu Hurayra def ko ku mag te ay ci waxam lañ koy déggee mooy euh, day ŋàññ Abu Hurayra radiyallahu anhu ci waxam yu bëree bëri ni ñu ci dellu si dañuy topp audio mi benn ak benn waaye Abu Hurayra jël nag ñaan daal di koy def ci benn nombre waaw loolu nan la génnee ci boyal ga jëndul ci boyal gi ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa moo boyal ñaan nga kon kay kum ñaan nga def nombre bu la neex waaye nag soo ñëwoon nag ne ma nombre bi moom dama ci jublu nombre bii ku ko def am yool sàngam ku ko def ah ñu ne yow nag boyalutoo yaa ngi yow yaa ngi tënk jaamu yàlla gi te loolu daa wuteeg li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def lii de lu leer la képp ku am xel di xalaat pour di nga xam ne lu leer la te ñoom la ñuy indi nag lépp day dugg ci day dugg ci seen ñàkk dégg gi ñàkk dégg diine wala boog bu nekk ak ak tey euh, la mu jeexalee mbiram ba nag euh, mooy ay saaga ay laan te loolu la muy tegtale wax naa ko ca euh, ca kanam ba tey ak fadiha la rek ci ñi nga xam ne ñu nekk jilaam di ko euh, di ko xam naa ne yemale bii ci première tontu bi nga xam ne moom lañu tuddee euh, radd ala ala Duwaybida euh, xam naa ne moom am na yeneen audio yu mu def yoo xam ne dañ ci taxaw seetlu balaa ñoo dem ci ñeneen ñi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu digg ak ak topp def sunu lépp lu ñu wax mu nekk loo xam ne jëmmi yàlla rek moo moo tax lu ci jub ñu xam ne ci yàlla subhanahu wa taala borom bi la la bawa ko waaye lépp lu ci dëng na ñu xam ne si ñun ñi ak sunu ñàkk xam ci la la la jóge allahu